nañu waaw comme que gëj nañ génn nañu ñaanal rek. mais Sénégal moo tax Sénégal dañoo nam mais ñoo leen gën a nam. na ngeen ñëw na ngeen a ñëwee wax ma sa combat mais tey signature. waaw ñëwee fair play rek ñëwee làmb parce que làmb moom xam day defar mais yaa xool waaw ñëw rek def li ñu war a def incha allah waaw di ñaanal sunu mbër yàlla dugal ko ci bisimilahi maa rahim génne ko ci alhamdulilahi rabi alamin may ko ndam lu sedd guy incha allah. mais ñu bëri leen ni maanaam Boy Niang mu def Balla Gaye moo tuut Ama Baldé noonu la ñëwee def ci Gris Bordeaux maanaam ñëw yëngal foofu yëpp. waaw moom boo bëggee dégg-dégg li muy def moom yow mi nekkul moom sax xam nga li mu war a def parce que ah moom euh, dañ ko fay pour mu neexal làmb waaw day ñëw remplir contrat am def li mu war a def lépp nag ci yar ak teggin waaw parce que làmb moo dépassé yenn affaire yi làmb léegi dañ koy teg ci xamante ne nii mooy loolu quoi ñaan yàlla yàlla may ñun ndam incha allah. mais Gris Bordeaux Modou Lô da daan ñaari yoon. yéen ngeen delluwaat jëlaat Gris Bordeaux loolu du risque. lamb amul risque lamb quatre personnes duñ la sot lamb yaa benn nit rek koy def lamb ñetti affaire moo ci am victoire machine nul défaite moo ci am waaw amul risque risque amu ci ñaan ñaani yàlla sunu borom yàlla rek mooy maye ndam ñaani yàlla sunu borom bis ba mu yombal ndam li may ko Ama Baldé incha lool loolu rek la. Mhm. waa Cité nee na après combat bi ngeen jël seen parce que loolu combat la ñuy waaw Ama moom dafa doon topp ay mbër di leen bëgg a bëri ñoom bu demee léegi bañ koy topp di ko tëkk lool sant yàlla la incha allah loolu laa mujj neex la. ban bàq lu bees tax incha allah. comme lu neex. <laughs> lu saf <laughs> maa la loolu.